waaw moo tax sànq wax naa la ko ci bëccëg kon naa fekk googu noonu est ce que xam nga ne ci yonent yàlla Muhammad la njëkkee ak saxaaba yi parce que ñoom ñi woote ñoom ñi dem ba teg ci julli ñoom xam nañ ne du dëgg di Alioune looloo taxoon ñu rey ko te ci sàppe julli lañ ko fekk waaw waaw moo taan taxaw di leen wax ne ñu ngi koy def waaye xam ngeen ne lii ñuy def nii waa ji bàyyiwu fi lii gars yi xam ne kii buñ ko seetaanee dana yàq jeu bi dana yàq dil bi ci sàppe julli la waaja roccee ko jam ko xaj xeeñ mu dee billaay wallaay tàllaay kon xanaa ñoom ay naa naafeq la te ñu ngi ci doon woo jaam ñi ànd cee ñoom di ko def te ñoom xam nañ ne Seydina Mohamed bàyyi wu fi lii kon naa naafeq gi xanaa ci ñoom la tàmbalee kon nga bëgga a wax de boo ko waxee ma d'accord ko boo leen ko nangulee nag moom bu boobaa nangulal kii ay barul di boo ci dugalee na nag naafeq la ñoom ñu ngi koy def xam nañ ne du dëgg moo tax ay naafeq lañ rek kon saxaaba yeeg yénti yàlla Muhammad ak ñoom ñëpp ay naafeq le waaw loolu da koy nangu parce que ñoom ñi ko doon def ñoom xam nañ ne du dëgg du jaamu yàlla Muhammad musul wax nag ci julli la woote indi aaya bi doo ko indi ci xadis doo ko indi ci alquran Muhammad musul wax na julli mooy caabi ajana Muhammad musul wax ne julli mooy lu kawe julli mooy lu mat musul wax na julli mooy seede islam musul dugal kenn ci ci ci islam jaaree ko ci julli léegi lan moo tax ñu jékki saay indi julleeg yooyu teg ko alors que jullit ñoom nekk nañ ay jullit lu yàgg hm, te yii ma lay wax amul léegi lan moo tax ñu indi fi julli kon tey ji koy naa fekk fa la départ baay waaw da ngaa juum da nga naan ba ñuy jóge ci yàlla di ñëw ci àddina indiwuñ dara loolu mooy tekki ne kon moom yàlla amul tous foofu loolu la la bëgg a wan man yàlla fii ma toog awma fi dara boo ma fi téyee tamit doo fi am jabar doo fi tabax kër doo fi lekk doo fi naan ah doo sol dàll doo ñaw doo tabax kër ah jant bi du la jëriñ ngelaw li du la jëriñ géej gi du la jëriñ li ne si suuf du la jëriñ doo whatsapp doo portable doo def mariage yow faga nga jóge noonu kay loolu la la yàlla di wat yow nga ñëw ba fii nag fekk fi fekk fi loo euh, euh, kër yi fekk fi portable di mën a bay di lekk di naan. ah jëriñoo géej gi jëriñoo mala yi jëriñoo li nekk ci suuf ci lépp yàlla moom lan lay jëriñoo fii si àddina bi laat te xam-xam fii la amee njëriñ <laughs> xam-xam moom amul feneen fu mu amee njëriñ fii la amee njëriñ ba ngay jóge ci yàlla xamoo dara looloo tax nga war a xam ne kon foofu xam-xam newu fa ba ngay ñëw moo tax xamoo tuus fii lañ la xamale teete la yar la def ci yow xam-xam foo toog sant say waay jur wala sa sëriñ barke Seera Faal yàlla lu mu xam xamul dara waaye yàlla moo xam lépp kay indi preuve bi man léegi yàlla na la wax lu nekk sama poos bi ak man fan laa taxaw nii fan ci lan laa nekk te téléphone bi ma yor ban marqué na na la ko yàlla wax yaw mi ko koy seedeel nga indi ko ma xool su ko su la ko waxee nga wax ma ko rek ma xam na xam na lépp xamul dara tous xamu ko loolu dañ ñu koy naxee kese lu mu fi xam <laughs> barke laa ilaha illallah yàlla xamul dara waaw xam-xam ñun ñoo ko yor ñun ñooy doxal waaw waaw ah yee koy wax sax gaa woykat bi woy na ko moo yàlla waxul dara parce que xamul dara ñu ne ñu ne yàlla noppi na <laughs> yaram dem leen wëri yàlla barke Seera Fall déet bul ne xam-xam boobu keneen mënu ko danga naan yow mënoo ko Sénégal fii rek siin siin bu danga fay dugg fekk salte ga bu taxaw waaw waaw taxaw ñëpp taxaw di ko xool mu ne mu yàlla ji tawal barke laa ilaha illallah fa mu koy wax du mat ñaari minute asamaan si xiiñ ñuul kook nit ñi daw mu commencé taw loolu mi ngi fii Sénégal sëñ Fallou dañoo wax ne fii la daan taxaw naan tawal mu taw te loolu dëgg la bu wër ba tey mi ngi am te yàlla lañ ko adressé ñeneen ñu ngi koy def te ki koy def nag doon doomu aadama comme ñun bosom bi ëpp njëriñ bu yàlla bi parce que moom dana ko def ba pare jëriñoo ko yàlla def ko du ko jëriñoo parce que du bay xanaa amul xam-xamu mbay <laughs> lekkul naanul ngeen wax léegi moom mu taw loonu moom moo taw moo taw moo taw nga wax waa dëgg la waaye bi mu tawee lan la ko jëriñ lan mënu ko jëriñoo parce que ñàkk xam-xam moo tax mënu ko jëriñoo ñun am bi ñu am xam-xam moo tax ñu mën ko jëriñoo am bi ñu am xam-xam moo tax ñu mën a jëriñoo mala yi am bi ñu am xam-xam moo tax ñu mën a jëriñoo soxna yi am bi ñu am xam-xam moo tax ñu mën a jëriñoo yére yeeg dàll yeeg avion yeeg portable yeeg lépp ñu mën koo jëriñoo waaye léegi yow boo fi bëggee toog ay moo lay rey moo taw léegi lu koy jëriñ loolu ban njëriñ la koy la amal ban njëriñ moo taw kese quoi moo taw. <laughs> barke Seera Fall waaw te ni ko waxee nag moo am ñun dara safuñu bàyyaaram waaw ñun dara safuñu barke laa ilaha illallah waaw bu dee réer la baax na bu dee kéeféer la baax na waaw bu dee moo ñuy tàbbal safara baax na amul problème waaye li ñu wette ñu mooy li ñuy wax moom preuve la waaw li ñuy wax moom buñ demee fiñ teg euh, liñ fi teg ne kaddu yàlla la dañ ko fay génnee góor yàlla bu bind lii ñuy wax moom nga yégoon ba di bind te téere buñ ko fëgg fekk ko fa xas xadis yu yëddanti yi ñuy wax buñ ca duggee ñu génneel la ko waaw kon liñ lay wax nii moom wax dëgg yàlla du deex a di dindi daal. yow lii mooy wane naa moo xam-xam mu ne loolu yëfi sayaatin la jëriñu leen. ah tey nawet nit ñi bëgg mu taw suuf saa ngi waw ñu dem wax ak saltige bi salte bi génn xaacu <laughs> affaire yi taw continuer ko trois jours wala une semaine muy taw ba gars yi mën a génn dem bay seen gàncax yi baax nga ne loolu noonu amul njëriñ. ah yow balaa yow danga ngaa neex yëfi sayaatin la. léegi kan moo koy def mu nekk dëgg yàlla te te def bi di benn parce que yàlla moom it su ko defee ba ko saltige bi defee fa mu jëmee gaa yi fa la moom saltige bi fa la posom jëmee gaa yi mooy génn seen kër yi rek dem bàyyi la ñu am nga ne loolu yëfu seytaane la <laughs> ah yàllaay seytaane bi kon ah yow moom moom la ñu wax ne moo moom asamaan si moo moom taw bi du loolu ngeen wax moo moom moo am kattan moo am pexe lu ko neexul du ko def saltige bi taxaw ne na taw xanaa du moo ci ànd kon wala saltige bi moom dafa luxus ndox ndox moom da si asamaan ci la wàccee. waaw man kay bañu ma loolu. amono billahi wa bi rasuli atiyullah wa atiyu rasul yow kay ya ñëw jël ñaar yooyu def ko benn yow yaa jël laa ilaha la muhammadu rasulullah na benn la. li nga wax ni dindiwuma ko di alquran la te muy lu wér topp len yàlla topp yónnante bi gëm leen yàlla gëm yónnante bi yow kay loolu moo tàkkar leen ne kon ñoom ñaar duñ benn. bu doon benn la kay kon amul gëmal kii gëmal ka la benn la kay gëmal yàlla rek yem ci wala gëmal yonent bi yem ci waaye gëmal yàlla gëm yonent bi toppal yàlla topp yonent bi yow nga ñëw léegi indi say sahaada ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah benn lañ koy def parce que loolu moo la arrangé ndax ci lay juróom yi di mat loolu du fi amee loolu nag mooy lëndëmal yi ngeen ñu wax ne moom la yàlla yàlla di yéen yéen a toog ci lëndëmal di lantal du fi amee waaw affaire bi day leer naññ fii dara fi lëndëm ah yow kon sa yàlla ji doole jiñ ko jagleel ak kattan beeg yooyu noonu moom amu ko gannaaw yow jaamam bi yaay toog may wax ci moom mu lay métti te moom mi ngi ma tiim xam lépp dégg lépp gis lépp yow mu lay métti fi nga toog te yow métti boobu noonu ngay wax xam nga si sa xol bi lay jàpp moytul de bu la ci dee fekkee safara nga jëm waaw ah, xol moom wo te yëg lu dul yàlla yow sa yàlla ji mooy loolu maxalla yéen seen yàlla ji yàllay programmation yàllay imagination moom ngeen topp dem leen wëri yàlla yàlla mi ngi fi moo leen ko wax wa huwa mahakum ayna ma kuntum allahu jalisu man sakare nii nu ne nu ne nu ne la la yàlla bëgg a nga ne doo yeewu nahnu aqrabu min qabli ilayhi warat am na benen euh, fa iza zahalaka hibaadi euh, inni qaribun uhibbu dahwata xawma lan daahi buñ leen buñ leen laajee wax leen ne ku leen jege boo leen ma wooyee wuyu soo leen ma xeeñcoo sax ma xeeñ leen yooyu yëpp yàlla ngi koy wax ci xadis boobu noonu defe naa ci lay wax ci lay demee ba naan nahnu aqrabu min qabli ilayhi warat yow loolu yëpp yàlla bi lay bëgg a yee nga nekk fii rek yow toog ci ay imagination quoi yàllaa xam lépp mooy taw moo lay rey mooy def nii mooy def na le <laughs> non dafa yéeme ko am noonu la demee nag moo tax sooy wax ak ñoom da lay leen ñuy wan ne yéen seen yàlla ji day yéen yàllay imagination la. ñoom seen yàlla joo ñuy wax moo xamul dara <laughs> waaw amul xam-xam xamul dara tous xamu ko déggoo waa ji may mujj waxal ne li may wax de ko métti ma ne ko ah yow sa yàlla ji xam ci li ma ne xam li may wax dégg ma xam lépp am kàttan ak pexe hmm? defuma dara yow yaay toog yow simple jàmm nga an sa xol bi mi ngi métti bàyyil xel de waaw sa xol bi moom bu dee sama wax jee tax muy métti bu ko ci dee fekkee moom safara nga jëm parce que warta yëg métti yàlla la war a yëg te yàlla méttiwul <laughs> non ñii ñii mooy loolu ay lëntal maan lañu waaw ñii boo fi nekkee sax di leen jéem a leeralal yaram bi da nga may bunt yi ñuy mën a développé seen yàlla imagination boobu noonu ci nga leen ñuy fekk taxañ lépp sànni ko dégg nga ko mu ngi noon nee na dootul laalati samay audio <laughs> moo xam nag. waaw xamatoo ci dara nga toog déglu doo xam dara. <laughs> <laughs> wutil xam-xam waaw moo gën xaw ci dara da ngay dem nga uti xam-xam xam-xam mi ngi fi loolooy dëgg li ma leen wax ba ngeen dee doo leen ko teppi yàlla doo leen ko adressé xam-xam xamul dara képp ku ne xam na rek indil lum xam dara xamu ko fi loo fi soxla ba koo defar dañ naan la wëril boroom xam-xam ba yow yàlla gën laa jege kay ne ko mu defaral la ko doo doo ko ko mosa a wax. waa léegi yow li nga wax noonu yëpp léegi après loolu lu koy jëriñ ma njëriñ bi laa wax njëriñ bi mu fekke la foofu rey la yow balaag lu mu koy jëriñ hmm? yàlla taw lu mu koy jëriñ hmm? li ngay wax noonu yëpp laa la wax moom bu ko defee ba pare moom après loolu lan la koy jëriñ moom lan lan yow taw bi yow moom dina la jëriñ mi jëriñ baykat yi de mais moom taw bi lu mu ko jëriñ léegi rey bi mu la rey yow lan la ko jëriñ da koy yokk wala da koy wàññi. lan lay def ci moom lan <laughs> waaw yow yaaram dem leen ngeen wuti xam-xam xam-xam ñun lay jëriñ moo tax ñun la ko adressé billaay wallaay tàllaay te su ko amoon du la joxoñ fa koy utee ji dala koy defal mais daf daf la bind ba pare nee la yaayu la si naa munu ittaqullaha wabtaqoo ilayhi alwasilatu wa jahidu fi sabilillahi fas alu fas aluhu ahlu zikrullahi in kuntum laa taxlamuuna dem leen ngeen laaji ma man yàlla ñu ne ko ñan mu ne borom xam-xam ya xanaa moom amul xam-xam te gën ñooy jege bu dee jege moom jege nañu moom am na xam-xam mënul def ci ñun xam-xam ba naan ñu dem leen ngeen laaji ma borom xam-xam yi <laughs> yàlla xamul dara. ah yow sa waay yi ngay wax nii yii moom wax dëgg yàlla foorul ci Baay Faal bi ay yàlla yàqamte wala ak ay bés bi ngay ñëw ban bés la loolu moom ban bés la ban bés. man yàlla su fekkee mënu régler fii ay mbiram man moom wallaay laazim dootuma gisati du gis fenn te ndaw lu mu yebal ci man bu ñëwee ma defal ko bagaas dama koy faat barke laa ilaha illallah ay ndawam xam naa ne malaaka yi ñëw malaaka bu fi yegsi billaay dootoo ko nettaleeti dama lay wàccee yow yooyu di waxi caaxaan <laughs> ay ndawam buñ la fi fekk see ndaw yàlla lu muy soxlaa ay ndaw sax moo am kàttan ak pexe tiim lépp xam lépp léegi lan lay doyatee ay ndaw xanaa tapet la bay wut ku muy yóndi mënta ñëwal boppam mënu koo defal boppam te fii may wax ak yow nii su mënu régler mbir mi ci fii ñu ne fii ci àddina bi fii nii wallaay laazim ñàkk na ma du ma gisati ba dan waaw te ñun man damaa sekkut ak yàlla sax ay taxaw mu naan daf may jéem a euh, isaab yooyu noon man kenn du ma atte ISAP déedéet ñun jéggi nañ foofu waaw waaw loolu di dëgg yàlla ku mu atta tabal la safara yàlla heure ku heure boo gëmee ne yàlla dina la atte rek pareel yow moom sa safara ngay boy parce que ku toog ci dëgg du la atte ndax moo ko wax mulku yawma ma xaq li rahmaan yàlla du atte dëgg waaw tribunal saayir bi sax duñu ñu dëgg waaw waaye subhanallah amu ci subhanallah kay sell la li ma la wax kay dara gënu ko sell yàlla bu amee xam-xam moom xam-xam boobu lu mu koy jëriñ ba tax léegi wax wo bi kulli shay'in alimun ñu ne moo am kàttanu xam lépp te doomu aadama yi ne fi xam lépp yow li ne diggante asamaan ak suuf lépp lépp lu fi génn ñu teg ko ci kaw àdduna bi mu yéem nit sa moroomu nit a ko defar moo xam avion la moo xam ba ci portable yi ñuy defar yàlla defaru ko fenn fan fan la ko yàlla defaree dañuy waaw ordinateur yeeg internet ak euh, satellite ak ah otoog euh, nu koy waxee pistolet ak métraille ak lii loo fi xool mu lay yéem xam-xam la te xam-xam boobu noonu buñ ko toppee ci nit lañ koy fekk yàlla defaru fi tous kër yi tabax tabax tabaxaluñu ko te heure boo soxlaa tabax kër borom xam-xam ba ngay wëri gannaaw moom moo am kàttanu xam lépp kay mu def jotee lan moo tax demoo wëri ko mu ñëw defaral la maçon bi li muy def du xam-xam. ki defar portable defaree wu ko ci xam-xam ki defar pistolet defaree wu ko ci xam-xam satellite nag niñ def ba créé ko sànni ko ci kaw loolu du xam-xam teley yi nag courant nag dàll ak yére nag <laughs> ah yow yàlla bu amee xam-xam xam bo ba lan la koy jëriñ lan lan yàlla xamul dara tous xamu ko fi barke laa ilaha illallah ñu naan moo am kàttanu xam lépp indi leen preuve bi kay waaw waa léegi yàlla moom boo xamee lépp ban chance la ko amal yàlla bu yàlla bu xamee lépp ak xam-xam boobu ban xeetu xam-xam la moom ban njëriñ la ko xam-xam di di di di maanaam euh, di di yàlla moom xam-xam lan la koy jëriñ lan. lan lay jëriñ yàlla xam-xam lan la koy jëriñ man loolu laa lay laaj lan. lay walaay talaay hmm? mooy la ma waxoon waa ji keroog rek xam-xam jëriñul yàlla dara. yàllaa am kàttanu xam li fi nekk yëpp yàlla bu xamee asamaan léegi asamaan ba njëriñ la ko amal moom moo ko bind kay bind gi ko bind njëriñ gi ñun ñoo koy jëriñoo mais yàlla du ko jëriñoo kon yàlla xam asamaan xam-xam boobu moom lan la koy jëriñ mu xam jant bi lan la koy jëriñ mu xam xar bi lan la koy jëriñ mu xam ginaar yi lan la koy jëriñ mu xam soxna yi lan la koy jëriñ mu ñun bu ñu xamee luñ koy jëriñ suuf si moom bu xamee suuf si lan la ko suuf di jëriñ yàlla xam lekk ak naan guddeeg bëccëg loolu lan lay jëriñ yàlla tàng na sedd na lu muy jëriñ yàlla wëral xam-xam ba mu jeex tàkk bu mu ci mënti doon nga indi teg nee mooy xam-xam bii mi ngi jëriñ yàlla soo ko gisee rek indi ko lan la xam-xam di jëriñ yàlla lan yow yàlla mënta sax jëriñoo boppam ñun ñoo koy jëriñoo te lépp lu nekk ci àddina ñu ñoo koy jëriñoo asamaan si ñoo koy jëriñoo suuf si ñoo koy jëriñoo mala yi ñoo la ñuy jëriñoo ngelaw li ñoo koy jëriñoo Hmm? gàncax gi ñoo koy jëriñoo ndox mi ñoo koy jëriñoo tàngoor bi ñoo koy jëriñoo sedd bi ñoo koy jëriñoo jant bi ñoo koy jëriñoo yow lépp lu nekk ci diggante asamaan ak suuf lépp ñun ñoo yàlla sax ñun ñoo koy jëriñoo nga bëgg a toog fi naan moo am kàtt xam lépp mu jëriñ ko lan <laughs> ba njëriñ la koy amal ban bañal wuti xam-xam rek parce que sëñ Bamba boo ko wutiwul safara nga jëm. ah jox waa ji dëgg laa ko wax nag dëgg yàlla moom Muhammad ak yàlla moom duwuñ benn ashaadatu an laa ilaha illallah bañ nañ ba dañ ne wa anna muhammad rasulullah wa anna muhammad wa na googu noonu li muy li muy li muy li muy tegtale mooy da ngay seedewaat ne kii ndawal yàlla la yàllaa ko yóndi léegi-léegi yow ñu ne seede laa ilaha illallah ak seede muhammad rasulullah benn la kon kay ku seede laa ilaha illallah yow muhammad nga seede kon buur bi ñuy wax naan moo yeeyoo jaamu est-ce que du na Mohamed ñoom lañ ñu bëgg a tegal kon <laughs> ah waa yaaram yow yàlla bu waxe loolu tekkiwul ne mi ngi ci suuf quoi yow léegi da ngaa aj yàlla ci kaw ba pare aaya bi nangu nga ne yàlla mi ngi ànd ak ñun ànd ànd <laughs> waxul da maa ngi leen tiim de waxuwa ay na maa leen mën a ne maa ngi ànd ak yéen waxul ne maa ngi leen tiim yow léegi nga dàq ne yàlla moom nekkul ci kaw suuf te aaya bii waxul waxula loolu hmm? ñëw ci arrahman rahman mooy la rahman bu dee yërmande la nga ne euh, yàlla kese la déedéet du yàlla kese buy tekki yërmande yërmande ñi ngi koy adressé nit ñi ngi la koy adressé yow ñi ngi ma koy adressé diw borom yërmande la diw ku bëri yërmande la buñ ko adressé yàlla it ñun am nañ ko kon ëppale wuñu ko kon baat boobu nga wax yàlla moomu ko ñoo ko bokk parce que heure buñ ko adressé yërmande ñun ñu ngi koy jiiñante suñu biir diw ku am yërmande la diw ku soxor la te soxor boobu mi ngi ci yàlla parce que la nit di def ba tax nga ne dafa soxor yàlla nga koy def billaay wallaay tàllaay maa ngi la dégg say biir wax nag nga naan ay yàlla euh, nu mu mel dafa mel ni loolu ngay laaj léegi loolu question bi mooy fan la manqué waaw fan la manqué boo amee loo duut baaraam ne yàlla nekku ci rek bu booba léegi tey ñun ñu wax la nu mel waaw yow waxal fu yàlla manqué rek parce que yàlla moo ne waxuwa bi kulli shay'in halimun waxuwa man yàlla bii nekk naa kulli shay'in ci bépp mbir mu ne halimun xam ma ca nga weddi boobu mu ne la allahu nuru samawaati wal ardi wa ma baynahuma maay leer ci asamaan ci si suuf ci ak lépp lu ne ci diggante bi kon fu yàlla manqué waaw heure boo laalee mbir ne lii yàlla nawut ci rek bu keroogee man ma wax la ni mel barki sëñ Bàmba yow da ngaa rëy da ngaa rëy nit koo xam ne boo ko waxee dëgg sax rëy na sax taxaw ne li ma wax dëgg la yow danga rëy quoi da nga rëy boo dof dof loo boo dee sax yàlla éléphant la lay def demal la. c'est gaa yaa ngi retiré dégg nga éléphant bi seet noonu lañ koy waxee de boo rëyee boo nekkee ku rëy nii boo dee non gars yi da ngay rëy ba sonn rek yàlla éléphant la lay def quoi boo nekkee ookaa di àtte boo dee baaxoñ ngay doon quoi gars yi boo nekkee di sàcc boo dee kaño ngay doon gis nga nii la ngay kii nii lañ koy toppee nag waaw maanaam jëf booy jëf daal am na am na jëmm jun la ko war a solal yére waaw jëf bu nekk jëmm la quoi danaan la jëf bu nekk jëmm daa ni ko jëf bu jëf ba dee ci rek yàlla daf koy tëgg jëmm nag après solo ko ko nag waaw gis nga euh, mu nekk mbugal ci moom <laughs> seet mi ngi feeñ de waaw mi ngi feeñ de xaw kan lay waxal diine xaw ma man man lay xaw ma kan lay waxal waaye mi ngi feeñ de <laughs>